Amen.

Seconde ñoo ko gisandoo euh, gannaaw bi fi euh, première euh, dame de la république ñëwee di Marème Faye Sall gis nañ mbooloo mi ni ñu bëree gis nañ gars yi di buski di bousculer nit ñi nga xam ne ñoo ñëwoon pour. may euh, la première dame euh, waaye sànni mbatt mu tag ndax nit ñu bëri Marème euh, Faye Sall mi ngi bëgg a jàll waaye fu mu nar a jàll rek nit ñi kar ko boole kooku ay yuuxu di mag ñi fee geste bi nga xam ni moom la def tey ji Marème Faye Sall def na presque trente minutes ci benn distance boo xam ni matul 100 pour jàll fi nga xam ni mooy cabinet du maire Abdoulaye Timbo ñu ngi gis aussi force de l'ordre yi ñu ngi fi. Euh, kenn ku ne di xal yoon ngir Marème fay Sall am fu mu jaar ngir mën a dugg ci biir euh, cabinet du maire bi euh, ñu bàyyi leen ak image yi ngeen gisal ko seen bopp ni mu fa demee. base bi nga xam ne. bëriwul boo ko xoolee. bëriwul bëriwul billaahi wallaahi boo xoolee base zone bi di nga xam problème yi nekk bi. waaw waaw. yaay yaay. yaay. fekk yow nekk man ngeen am man ngeen dëkk ma ñëw tey gisuma affaire bi nii di ruus non takk di solaan takkul dara masque rek ngir cofeel ci yow dañoo meroon dañoo meroon yaay booy dañoo meroon yaa na sunu xol barki alxuraanu karim yow yaay sunu yaay mais nag moment de la nation. waaw vous recevoir. wax ak yéen. après demee moom. mu ñëw si man wax ak yéen. non yaay xaaral Ablaye bëgg nañ mais mënul lépp wax naa ko ci commencement bi. xaaral Ablaye jël nañu jël nañu jël nañu jël nañu xam nga waxtaan wax dëgg ci la suñu problème bii yaa ko mën a faj. non non lii waa Kër Timbo la. non non non non non non c'est pas waa Kër Timbo ay jeunes barki alxuraan xam nga ngeen tegee nga jàppale ñu ba jàppale ñu ñu jàppale ñuy xeex man dëgg rek laay bu mais xeex noonu cër na moom dafa ànd ko jàppale ñu waaw ñu ngi rek war na ñu ngi ko toogal yàlla ñu ngi seen ñun dañoo taxaw dañoo taxaw dañoo dem ni la politique parce que Maysa Marème Faye dimbali ma te yàlla tax sama doom bi ñoo dagg tànkam sama doom bi ñoo dagg tànkam protège rek laa bëgg te yàlla tax premier dame dimbali ma te yàlla bàyyi ma waaye ñii dañoo lii baax na en tant en tant que koy def ñu ay sauvage lañ ñu ay sauvage lañ Marème bul ñëwoon de macha allah tu fa koo xam dimbali nga ko toj nga miir Pikine toj nga miir de la vie kooku May Sall chérie madame Faye Mati Sall barke yonent bi ñun ñi de PAM dong la ñu àndal Pape googu nag monsieur le ministre wax lakk dëkk daa di damaa xam ne mos lu toll ni premier daan bu ñëwee Pikines ak nii mu ñëwee ñu réglé seen bopp. xam na yàgg naa def ci Pikine Est lu ñëpp di coow lu baax lu ñëw macha allah laf cat jëkkëram borom këram di président di def nag ci Pikine Est def ci àddina bi yëpp du ñu yiw nañu Dimbo Dimbo Dimbo <laughs> Alex,

may jili may jili may ndimbal lii euh, première dame daf fi ñëwoon tey ndax xam nga jamono ji ñu toll réew mi dafa nekk enfin pas réew mi mais am na ñenn ci suñuy mbokk ci réew mi da nekk ci calamité muy lu xam ne mu ngi juddoo ci taw yu mag yi nga xam ni samedi taw na ko ci réew mi ba tax am yenn localité yu xam ne ne nañu inondation nag foo ko waxee ñaar la euh, ndox mi dana dugg sa dëkkuwaay dana yàq say bagage commencé ci dund bi ensuite nekk ci dëkkuwaay bi ba nga xam ne nit du fa mën a bokk nekk ak moom kooku le boo ko bëggee jàppale dans l'urgence urgence laa wax Euh, sur le plan structurel am na lu xam ne ñu ngi koy def euh, le plan décennal de lutte contre les inondations ñu ngi koy def te plan boobu ak lu ñu mënul wax nag bëri na lum jur ndax inondation yi daan inondé des centaines de famille taw yooyu yegguñ fenn taw bi taw barki démbu samedi te pourtant li ñu daan am si inondation amuñ bi yoon lu lu lu yegg foofu c'est-à-dire que plan décennal bi nga xam ne président Macky depuis mu ngi koy déroulé pour xeex inondation déjà am na lu muy jur waaye plan bi pareegul 2013 la war a jeex plan décennal la ñu wax mooy plan wu fukki at ñu tàmbali ko 2013 mu war a jeex 2023 astafurlah 2023 la war a jeex plan boobu jeexagul waaye am na lu mu jur déjà ndax am na fi ay commune fu mel ni Dalifort fu mel ni Nioro du Rip commune yooyu inondation yaboon na leen te gën liggéey ba fa plan bi def tax na ba bi yoon inondation sonalu leen ñi nga xam ne nag ñoom la inondation sonnal ñoom la première dame waxoon ne tey dana jeego ay tànkam ñëw d'abord massawu leen parce que ñun suñ aada bu fekkee sa mbokk tiis def ko dal nga dox dem seeti ko donc d'abord ñëw bi d'abord ñëwu massawu la ñaareel bi mu ne duma fa demee loxoy neen parce que ay mbokk la yoo xam ne soxla nañu kër yi ndox maa ngi si nañ jàppalante ñun ñëpp ñu fexe ñooñu le ndox yi génn seen kër yi moo tax mu indiwaale vingt 24 moto pomp yu xam ni ñooy manque ndox mi ci biir kër yi moto yu efficace lañ bët bu set benn moto bu nekk bët bu set mën naa wax ne mën na ŋacc ay fukki fukki fukki kër tàqale leen ak ndox mi donc indi na fi ñaar fukk ak ñeent yu xam ni daf ko jaglelee askanu département Pikine pour ñu mën a manque ndox yi ci seen biir kër yi mu boole fi 16000 litres carburant muy fukki junni ak juróom-benn ci ay litre carburant yu xam ne daf ko ci boole pour parce que moto yi carburant moo koy doxal comme oto donc carburant bi koy doxal indiwaale na ko 16000 litres pour lu mën a doxal moto yi mais ñuy jàpp ne aussi mbënn bu duggee ci kër li gën bari bokk na ci mu yàq mooy dund bi xëy na dana yàqalal yeeg yeneen yooyu dund bi moo gën a urgent moo gën a farata boole na ci juróom fukki tonu cinquante tonnes de yii euh, boo ko boo ko boo ko boo ko boole na ko si muy lu xam ni ñi nga xam ne dañ jëndoon seen ravitaillement def ko si seen kër yi ndox mi ñëw yàq ko ñu mun leen fi jàppale. ceeb bi ànd na ak dëwlin juróomi junne yi liitaru dëwlin euh, boole na ko si également pour ñu jàppale ko ñooñu. ànd na ak suukar ak yeneen yu sew yi nga xam ne mooy lii gën a nekk farata si suñ dund saay bu ñu xëyee. mu ne day ñëw jàppale ko askan bi euh, pour que vraiment euh, impact bi nga xam ne mbënd mi moom la waroon am si ñoom impact boobu ñu xaw ko gën a ñu xaw ko woyofal. mais commune yi si gën a laru waaw non loolu aussi euh, leeralal na ma ko ndax commune yëpp yemlewuñ moom yéemu na fi commune Kër masaar la fa xew Kër masaar boobu mel na ni mbënd mi ñoom daf leen sonal particulièrement doo donc bu bu ñuy seddale ndimbal bi Kër Masaar boobu nga xam ne euh, mbënn mi daf leen sonal duñ mën a yemle ak ki nga xam ne mbënn mi xaw na ko laal waaye laal bi garaawul maanaam daal képp ku mbënn mi gën a sonal rek yow yaa war a ëppale si ndimbal boobu la waaw bëgg nañ ko bàyyi xel comme niñ bàyyi danañ bàyyi xel commune yi mbënn mi laal yëpp danañ leen bàyyi xel dama si wax Kër Masaar parce que si yoon bi dañu waxtaan mu ne ma insister ci Kër Massar parce que mbënn mi sonal na leen bu baax nañ leen dimbale bu baax moom moo ma wax loolu moo tax ma insister fi voilà merci